laa liyoon a ngi noonu jarbaat ci alfali waaw maa ngi kontaan daal laa def nëbbatuwul benn yoon waaw xam nga xam nga ko dëkk micro rek eh, loolu lay wax président président sa émission Dakar tey jii jarbaat émission bu garaaw la def tey ah, bilaay tey jii Lutte TV laa def waaw président ni jarbaat ni nga ngi moo ko comme d'habitude. waaw fa bi bi feebaree bi ma ko gisee. sama dafa daw bari. moo am de. macha allah bilaay Lamine Saly damaa ne non non non te dañu bi ñu bi ñu mujjee déggante. Père Lamine ma ko dinaa la seeti ndeysaan. mu ne ma moment maa ngi géej. ndeysaan saa yu ma ñëwee dañu dinaa ko yàlla yërëm te xaaral waaw waaw. na woon fa woon amul bàyyi ilaahi nogo yaa ngi noonu kenn du moom laal yoon barki rasul laay billaahi <laughs> waaw ñeme àll bi ñeme làmb yàlla ak jëmm ji dëgg la vraiment manqué woon nañu lu bare bare bare bare bare buñu buñ dégg génnee ci àll bi amuñu fitu wax sax mhm. moom da ciy joué dëgg parce que mooñ moo ñuy may fit tànk ñu ngi koy di ko dégg dañuy am fit mhm. waaw mu nekk nga xamante ni waxoon nañu làmb ak am nañu xam-xamu làmb mhm. mais woon làmb ak topp wallaay na waaw ñu di ko ñaanal ci nga xamante nii moom lañ ko téye woon mu nekk fii yàlla doon càngatam yàlla doon càng nga tax vraiment tey moom suñu xol tooy ndeysaan Babacar ah. ma ma kontaan nañu rek di nuyu waa famille làmb yëpp eloo ngi noonu namu naa leen waa famille làmb bàyyiwuma kenn ah. ñëpp surtout ma lutte bi ah. namu naa leen retour bi ñëw na dinañu échanger comme ni ma koy waxee rek làmb ak top waaw ay maxa yu ma ngi noonu <laughs> <laughs> waaw saa waay daa taxaw fi ni ne ay Ousmane Ndiaye Elo ngi noonu Elo Seen waaw waaw la wax de awa axlu baa ngi noonu waaw sant rek de ah sant ah. ah, yàlla rek waaw ah. de waaw mooy de yàlla na leen fekkal lépp lu jot yomb de gaa yaa ngi noonu ay maxa yu maxa Baxa sant yàlla de. waaw waaw est-ce que doole ma wàccee feere ba suba ma ñëw foofu gaal non dem leen rek man bu subaa ma ñëw waaw.